RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan euh, El Malik Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salam, sëriñ Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène euh, fas yéene waxtaanal euh, ànd ak yow ci waxtaan wi El Malik Ndiaye yow lañ dénk bànqaas bi yor wàllu xabaar ak jokkoo ci parti bi di Pastef te Ousmane Sonko jiite ko.

Euh, damay tàmbali rek samay kàddu di mastawu sénégalais yépp rawatina euh, ñi nga xamante ne ni ñooy gën a yëg coono bi ñi nga xam ne xëy na li ñu naan ay journalier lañu wala ay jaaykat lañu wala hôtelier wala ñi nekk ci secteur yépp nga xamante ne ni tey yëf yi laal na leen bu baax waaye tamit di mastaw bu baax a baax ñi ci diaspora bi euh, coono yi ñu nekk di dundee di jaajëfal bu baax a baax personnel de santé bi nga xam ne tey waneeti nañ seen xarañte euh, ci question bi nga ma laaj nag euh, comme ni ko xëy na ñu bëri defee bi euh, président Macky Sall woote suñu leader di président Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ne wuy ji woon nañ waaye wuy ji boo xamante ne nii bi ñu demee laaj nañ ko ay laaj wax ko suñu xalaat bi ñu génnee tamit wax nañ ak sénégalais yi gis-gis biñ ci am Eh, tey ñi ngi nekk di xool par rapport ak lépp loo xam ne waxoon nañ ko fa ak ñi yëf yi di demee ndax méngoo na déet donc ñuy wax ne rek euh, dañoo nekk di dund loo xamante ne nii euh, su jotee amul benn euh, sénégalais boo xamante ne nii di nga toog sa roq ne man yëf yi concerné wu ma donc ñëpp le concerné maanaam daf nekk loo xamante ne nii di naan xëy na l'union nationale la soxla waaye nag union nationale boobu noonu day ànd ak wax dëgg wax sa xalaat waaye tamit yaakaar ne lii mooy li gën bu ñu ko defee te su ngeen xoolee laata président Macky Sall di woote président Ousmane Sonko defoon na benn sortie doon wax ni yi ñu xalaata gum ne yu de force majeure yu mel nii wala épidémie wala pandémie su jotee nii la ñu war a président de la république dafa war a woo toutes les forces vives de la nation and ak ay personnel de santé nous xarañ ak ay conseillers dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ci mbir mi ba nga toutes les informations nécessaires tamit mu def les politiques ak la société civile bref avec les euh, forces euh, vives de la nation su ko defee su boobaa élan de solidarité bi day gën a yaatu et ñëpp dañuy sentir ne associé na leen. mais ni mbir yi doxee boobu ba léegi ni nguur gi di doxalee ak président Macky Sall jiitu ci ndax euh, méngoo na ak ni war euh, pour yéen. waa am na ci yu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla ñun euh, rafetlu nañu ko bi ñu koy wax président Ousmane Sonko ñu ko wax ndax bu yàlla dogalee mu taxawoon ne ah lii bu amee président Sonko président Macky Sall dafa war a. Euh, ak gouvernement am dañu war a tëj frontières yi au moins ak pays yi nga xamante ne nii am nañu foofu épidémie bi mi France mi Italie mi Espagne yàlla dogal tamit ñu tëj ko waaye euh, boo xom boo xoolee tamit joxe woon nañ yeneen ne ci wàllum koom-koom bi ak nu ñu koy wutee ak nu ñu fas yéenaa jàppale askan wi te ba mu fa demee tamit waxtaan naak moom ci loolu am na ci nag yoo xamante ne nii euh, doxal nañ ko ñu koy euh, rafetlu askan wi moom lépp loo leen mën di jàppale lu muy tuuti tuuti lu ñu rafetlu lay doon donte dañuy jàpp ne xëy na mën na gën a ñoŋ ah di rafetlu tamit wax dëgg yàlla gestion bi nga xamante ne ni jusqu'ici ci wàllu santé bi personnel santé bi ñu ngi koy gérer crise bi malaad yi ak yu ni mel wax dëgg yàlla euh, day day dafa nekk loo xamante ne ni ñoom duñu ñu jóg ci di leen jaajëfal waaye tamit loolu su yombee ci ñoom dafa fekk ne askanu Sénégal dañoo wone ak mat ci yu mesures yi les professionnels de la santé euh, joxe nañu ko te loolu mooy lii mën a tax ñu faagaagal jàngoro ji jëlee ko fi waaye tamit ay ni wala sax du alerté woon nañ ci yëf yi alerte bi nag président euh, président Ousmane Sonko wax na crainte yi ñu amoon ñun waa Pastef Macky Sall bi mu demee wax na ko ko wax ko xalaatam bi mu génnee tamit wax na ko sénégalais yi mooy lan yu mel nii bu amee xëy na li wolof naan ñi gàmm ak ñi raas dem bokkul dina am tout le temps ay yëf yu ciy rax moo taxoon mu teeloon a wax président Macky Sall ne ko dañuy soxla am un plan détaillé de l'origine des fonds mais surtout un plan détaillé des dépenses. ci wolof ak waaw maanaam dañuy am euh, maanaam koppar yi nañu koy dajalee dañuy soxla mu mu am euh, cellaange leer waaye tamit nañu ko fas yéene jëfandikoo dañu war a wan sénégalais yi euh, plan boo xamante ne nii ah dinañ xam ne lii kat dërëm bu ci nekk fii lay dugg ndax soo xoolee bi ñuy dajale koppar yi. sénégalais yu bëree bëree ci joxe seen xaalis ñii dem jox directement ministre de la santé ñii jox ay autorités locales ñii sax jënd ñoom séddaleel seen bopp donc loolu su amee hmm. day laaj gestion bi mu nekk benn gestion bu transparente ndax nag li tax mooy dafa am yu fi jot a jaar ay scandale sur scandale scandale sur scandale ngeen gis ni rapport yi OFNAC IGE euh, Cour des comptes ñoom ñëpp dañoo wane dañoo wane ay scandale yoo xam ne ba fii France daal di xëddal te loolu su amee mooy garde fu amul mooy lu ma mën di def tamit dara duma ci fekk moo tax ñuy jàpp ne yu mel nii su amee lenn rek moo mën a tax xel yi dal ba nga xam ne kenn du am dara lu muy njot ñëpp cee jàpp mooy yëf yi leer de A à Z ah président Macky Sall nag waxoon na Ousmane euh, président Ousmane Sonko que feek fan yi néew ministre wala waxtu yi néew ministre yi dinañ génne plan bi ba léegi nag gisaguñ dara li ñuy jot a gisagum mooy yëf yi dafa commencé rek coow li ñi naan scandale ci marché yi ñi naan scandale ci transport bi ñii naan euh, euh, wàllu cellangeeg même transport bi ak yu ni mel ñëpp a ngi laaj yëf yi leer loolu nag mënoon na ñàkk ndax fi mu ne nii xëy na ku naroon a joxe sax dina téyaat xaalisam ne man lii kat ah xaw ma fan la. ceeb bi ñu euh, ceeb bi ñu ceeb bi ñu ci jenn waay joo xam ni mi ngi fii ci Ndakaaru euh, moom daanaka dix huit milliards francs CFA fay nañ ko ko ci ndax ñaari société am lañ jox wàllu ceeb bi mm, ñu ngi wax ni ñoom lépp ci yoon la jaar muy kilifa yi di waa ji gañe ceeb bi euh, yéen nu ngeen gisee loola. waa xam nga loolu yëpp rek lay dellu ci ci slaide li ñu nga xam ne waxoon nañ ko. ne yëf yi dafa war a leer waaye tamit li taxoon voté wuñu loi d'habilitation bi dafa am solo parce que tey xëy na assemblée nationale mënoon na jouer rôle boobu wala sax loi d'habilitation bi bu leeroon nañ ak plan beeg yëpp leer suñu xel dina dal ne ah Macky Sall kat li muy doyee loi d'habilitation bi c'est pour plus d'efficacité plus d'efficience maanaam yëf yi gën a gaaw gën a gën a wóor gën a ñoŋ mais gisuñu loolu gisuñu ko ci doxalin gisuñu ko ci euh, euh, euh, mutiiru loi boobu noonu maanaam fi ñu ko doxee donc loolu su amee nag ñuy xëy di dégg ñu ne ceeb bi jox nañ ko ay société kenn xamul ci yan anam gis nañ société yoo xamante ne nii ñoo bokk tur ministère bi nee na ñaari sociétés yi bokkuñ ci leen moom borom sociétés yi génn na nañ moom moom moom ñaar yëpp mais benn bi commencé na 2016 benn bi commencé na septembre 2019 maanaam boobu am na juróom-ñett boo boolee ñoom ñaar ku ci nekk li la jox neuf milliards et quelque ak huit milliards et quelque waa ji laal na presque dix huit milliards loolu nag du lu ñu bett ndax yàgg na fee am maanaam ci ci ci ci mbirum euh, contrat yeeg luuxóor yeeg yooyu ci anam yëpp nag dañuy wax président Macky Sall mu gaawtu leeral yëf yi jël lépp loo xamante ne nii mbirum koppar bi la ak ni ñu koy doxalee teg ko ci comité boo xamante ne ni li ñuy def yëpp dafa leer et que euh, euh, ministre Mansour Faye na bu mu gérer lu dul opérationnel bi waaye balaa ñu ñëw ci loolu sax ñun dafa am yu bëri yoo xam ne dafa lënt suñu xel ndax ñoom xëy na ci un million de sénégalais la ñu visé waaye un million de sénégalais yooyu dañoo jël base de données xëy na li nga xam ne ci la ñuy basé woo pour euh, bourse sociale yi ni RNU bi ñu gis ñu am fa ñoom 000... 1 million de ménages la le wax donc 688 45 ménages cest soit pratiquement 30 des ménages du Sénégal ñu comme nous avons 1 million de ménages donc nous avons 411 955 ménages par ciblage la c'est soo ci communiqué ministère bi day wax ne yooyu maanaam euh, danañ danañ xool naka lañ leen

loolu moom mooy problème bi nga xamante ne ni euh, euh, kenn kenn kenn mënu ko kenn mënu koo naatable mais ci ci ci marché yi tamit soo xoolee ñoom ci yan anam la ñuy joxe sénégalais yi bourse sociale du par transfert d'argent ndax pour éviter looxoor yooyu yëpp gënul woon xëy na yanu maanaa ñu ne ku ci nekk liñ la fas yéenaa jox ka nan la ko jox par transfert d'argent lëkkaloog société yi fiy def transfert d'argent nga xam ne xam na leen ak poste bi nga xam ne ñoo ko moom fexe ba ñëpp jot ci ndax xam nga lu tax am na koo xamante ne nii ba mu bàyyee ba pare denc na lu mu dundee at wala juróom benn weer waaye kat ordonnance ya mu am munu koo fay am koo xamante ne nii moom am na xëy na lu mu dundee ndax benn mbokkam bu nekk Italie yónnee na ko waaye lu luyaas mu ngi koy am nay arrière loyer donc xëy na loolu moo doon gën a euh, yomb ak efficient ci état bi waaye moo doon gën a jàppandal ci ki nga xam ne moom moo yayoo loolu ndax soo xoolee li ñu wax ne daanaka dañ ko joxe boo ko calculer presque soriwul euh, soixante mille francs yaakaar naa boo leen ko yónnee woon xëy na dina éviter yi ñuy wax marché ceeb bi dara leeru ci waaye tamit transport bi euh, transport boobu transport boobu ginnaaw yow sa xam-xam daa màcc ci wàllu transport logistique euh, xayma giñ ci def daanaka ñaari milliards ngir transporter yëf yi ci biir Sénégal euh, lu yenu maanaa la ci sa xam-xam am déet. xam nga transport moom dafa am ay coût logistique moom dafa dafa cher li ñu wax ci li ñu wax ci nu ñu koy tuddeeti li ñu wax ci tonu ceeb yi ñu bëgg a yóbbu yëpp dépassé mu dépassé milliards. mën na xel mën na ko nangu waaye problème bi ci am mooy fa ñuy wax ne dépassé na milliard ak dépassé wul milliard dafa am transporteur yi taxaw na ñoom pare nañ pour participer ci élan de solidarité bi joxe seen ay oto bu boobaa état carburant rek lay jënd waa léegi man dinañ may may ma bàyyi ko fa ne nay damay fay problème bi foofu lañ njëkk amee te xam nañ transporteur yi nekk Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi am camion yu approprié pour def transport boobu xam nañu ni ñu toll xam nañ seen ay élan parce que li ci ëpp sax ay doomi daara lañ ñu ci ay sénégalais la ñu nekk fii tabax seen bâtiment seen seen seen seen entreprise jugee ci zéro ba yegg tey foo xam ne am na ci am quarante camions ñii cinquante ñii lu ko ëpp te ñooñu ñëpp bëgg nañ seen réew bëgg boo xamante ne nii bu leen état sollicité avant sax mu leen sollicité ñoom taxaw nañ ne mën nañ ci jàpp donc ñooñu loolu tax joxuñ leen yëf yi séddale bu séddale bi am donte man li may wax mooy premier choix bi c'était xëy na jox nit ñi euh, xaalis moo doon gën a noppal ñëpp waaye comme fi ñu toll nii nee nañ dañuy séddale waaye nañ ko jaaral ci anam yu wóor. Mhm. léegi nag ci yan anam lañ joxee marché boobu noonu. loolu tamit beneen problème la mooy jox nañ ko koo xamante ne nii euh, règlement assemblée nationale sax da ko tënk que ni xam nga ne kooku warul woon a am marché bi waaye ñii nee nañu. homme d'affaires la bu jege nguur gi bu am doole fii bu am doole fii xëy na sax ku déglu sa sa sa chronique gu démb mën naa ne tontu ba leer na mënuma ma faa waxaat lu ëpp li nga fa wax waaye dafay am solo ñu wax sénégalais yi que ni nañ xaar ne lii ñëw mën na leen a gën a yéem mën na gën a doy waar. Mhm. ndax kat ñii dañu ko tàmmal. ci wàllu leeraange président sax yaa ngi koy junj sànq waxoon na daañ taxawal benn comité national pilotage ngir nag muy saytu ak yorin ni wàllum koppar yi di force Covid euh, force Covid 19 bi mais gis nañu ba léegi ni dara taxawagul waxoon na sax assemblée dina ci nekk muy opposition bi muy nguur gi waaye tamit euh, société civile ba léegi daal mbir mi taxawagul. waaw ba léegi de dara taxawagul waaye koppar yi moom taxaw na moom. bañ commencé koo séddale bañ commencé joxe seen ay marché mooy li ma wax rek. gis nga ñii e, wolof daf ne kunda bin sa maam boo gisee lu ñuul daw ñii dañoo tàmmal loo xamante ne ni yàlla ñun nag comme tout sénégalais comme tout citoyen waxoon nañ ne xëy na ci période bii nga xam ne nit ñi dund ak deelantal xanaa nag dinañ dinañ denc seen jëfin yooyu noonu te benn au moins une fois ci seen nguur ñu doxal yëf yi mu leer moo tax dañ doon am njort bu rafet waaye nag dara duñu ci bett ndax yow ba nga waxee ne da ngay taxawal loolu ak ci anam yi ñu koy defee dèjà nga waxoon ne ay waxtu kañ la recevoir oon président Sonko ne ko fekke waxtu plan détaillé bi dina génn mais anam anu comité bi pourtant xaalis bi dee ngi circulé ñu naan jox nañ kii nangam jox nañ kii marché bi ak seen ay chiffres yu bokkul saa yu ñu xëyee jox ñu beneen chiffre bees te loolu xam ngeen ne tàmmal nañ ñu ko mais booy jox sax marché waaw nga jox ko sax transporteur boo xamante ne nii wax dëgg yàlla am na matériel bu adapté ak li ñu war a transporter mais camion benn du pour transporter ay mais pour transporter vrac la vrac nag mooy maanaam euh, clinker bi mooy suuf si mooy gravats yi wala mbalit mi ak lu mu mën di doon. pour loolu est-ce que camion yu adapté ci loola euh, bëri na ci réew mi. bari euh? bëri na fi même ba ndax ki ñuy wax ñu ngi naan al treize la ci am ak kii xam nga amu ci sens waaye tey am nañ transporteur yoo xam ne boo ci boolee ñaar rek am nañ sens te ñoom ñëpp ay plateau lañ yore ndax lu mel ne ay ceeb ak yooyu soo ko en grande quantité da ngay utiliser ay camion plateau. léegi nag bu lépp bu lépp weesoo euh, yéen opposition bi yéen yéen a bi de l'observateur tey sax mi ngi koy junj yéen kenn déggu leen ci joxem xaalis gi ngir jàppale nguur gi mu xeex coronavirus gi yéen waa Pastef fan yële. ñu doon wax ni bëgg ngeen ay milliards ngir politique euh, waajal seen bopp xanaa bu jàngoro ji teewee ak ni mel ci àddina ak ni mu duggee ci réew mi sax ngeen def dara waaye defu leen dara yéen a féetewoo wax ji rek daal. sëñ Babacar euh, euh, kenn ku bokk ci yéen woo na ma keroog ma wax ko li ñu def yëpp xam naa ne xam nga li ñu def yow. mais ah, dama la bëgg a wax ne tey xaw ma ko lu ngeen def <laughs> la ko wax dama la bëgg a xamal ni bu ñu deful woon sax kenn sañu ñu wax dara. ndax xam nga lu tax ñun dañoo nekk parti politique nekk parti d'opposition sénégalais yi fal nguur gi wóolu leen ñoom ñoo am entière responsabilité gérer crise bi loolu dama bëgg mu leer mais fii nag askan wi mooy taxaw fii du parti du dara askan wi mooy taxaw état Sénégal mooy taxaw falaa jëm waaye nag comme yëf yi amu ci Pastef de xel xel xalaatu si xel xalaat am am ci Pastef weetuwul kam moo xalaatoon ne président Sonko dina jóg soldat lam dem pale ñëpp gëmuñu ko woon ba ci bés bi mais situation bee ko laaj waaye avant loolu bi yëf yi amee yan ban parti ngeen gis ay militant am ñu nekk ci garage yi ak ci marché yi fépp ci Sénégal di sensibiliser di joxe ay ay ay ay ay ay produits euh, d'hygiène Pastef ba am sax ñu ñu ci xalaat naan ñu yéen a ngi politiquer mbir mi Sénégal nag foog nga xam lu ñu bëgg ñun ñu woo suñu ay militant nelaw ah ñun kat Pastef xëy na amuñu ay koppar yi ñuy pasar pasare waaye am nañ ay militants yoo xam ne seen niveau d'engagement seen niveau de patriotisme yegg na foo xamante ne nii suñ leen waxee def leen lii ñu def ko gis ngeen fii don de sang ci année bi yépp on a fekk des dons de sang partout nettoyage partout lépp li acte de citoyenneté passif mu ngi ci tey nag bi li amee dañoo commencé dem partout di def ay sensibilisation di ànd ak ay médecins en plus di joxe ay ay ay ay ay produits et tout ba ñu demee ba ne invité euh, interdire nañ lépp loo xamante ne mooy rassemblement contact ñu ne leen léegi nag changer leen seen format de participation. collecté leen seen ay don collecté leen seen ay koppar waaye dinañ ko jox autorité locale yi. jërëjëf saa yu ngeen gisee. biñ doon biñ doon naa ñii ngi nii di ñëw. ils ont mobilisé plus d'un million yoo xamante ne nii lundi dinañ ko jébbal autorité locale yi. El Malick Ndiaye ñun noonu lañ koy doxalee. jërëjëf euh, nga bokk ci parti Pastef bu Ousmane Sonko yendoog jàmm jaa ngeen jëf euh, mbokk yi.